di leen ziyaar ci bis bii nga xamante ni bi mooy màggalu Daaru Xuddus di ñaan sama borom yàlla sëriñ bi yàlla bàyyi ko ci kanamu njaboot gi mu yàgg ko taxawe ngeen yàgg a topp ci ginnaawam yéen ñi topp ci ginnaawam di ko dimbali itam yàlla jàppale leen suturaal leen seen yaakaar yàlla bu mu tas ci barke alxuraan karim tànk yi li ko waraloon mooy ku ne xam na diggante maam borom Touba radiallahu anhu ak maam Mouhamadul Hadi Touré radiallahu anhu ak suñu maam Seydil Hadj Malick radiallahu taala anhum ajmain maam fas Touré mam Seydi Hadj Malick maam Borom Touba ñoom ñett la woon loola nag moo sos suñu tànk yi tey ndax cosaan la moo yàgg fa tabaarakallaahu sëñ bi tamit way juróom di sëriñ Mbàkke soxna loon nekkoon ak suñu way jur Seydi Hadj Malick Touré di kenn ci moom nga xam ni sëriñ bi li génnam di néew lool lool daan na dem Taïf nekk ak sëriñ bi nekk ak moom ca tool ya boobu Taïf ab àll la fa tabaarakallaahu mu nekkoon relation yu rafet a rafet moo tax bi nga xam ne bis bii ñëw na. te yàlla dogal mosuma ko fekkee. Mm-hmm. ma ni nag ren moom maa ngi doog a jóge tukki bërki dem waaye dinaa ñëw. Mm-hmm. ziyaar si sëñ Moustapha ndax tànk yi baayam nekkoon ca la nekk. Mm-hmm. kóllëre gi baayam doon doxal ak suñu wéyjo mu di ko doxal ak ñun. loola rek lañ doon dox si. ñu ñaan sama boobu yàlla nangul ñu ko. ñu yàgg a ñëw yàggale yàgg ko fi fekk. ngeen ànd ak moom topp ci ginnaaw di liggéey yéen yàlla defal leen ndam ci barke alxuraan karim yàlla musal ci yàqu ak yàqule bi barakatil quraanil aziim kontaan nañu bu baax. asalaamaaleykum. ay woy juróom daf leen a joxoon cërub baay magi taalibe bi yëpp mu joxoon leen cërub mag moom Serigne Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma te sëñ Cheikh dama ko dund. loole mu nekkee woon nag moom Serigne Cheikh di doxal bis bi ba agsi ci bi mu waree wàcc ab liggéey mu wàcc ab liggéey bàyyi fi doom ju tedd ju baax muy sëñ Mbacke Mouhamed mu yor ko sellal ko lool di ko doxal. loo xamoon ci baayam mbaa ma wax ko ci baayam mbaa ma wax ko ci maam rek moo nekkoon ci sëñ Mbàkke Mouhamed sëñ Mbàkke nag nekk fi nekk feek noonu nekkin wu rafet woo xam ne ñëpp seede nañ ko ñoo xam suñu diggante bi nga xamante ne wàcc na liggéey tam bàyyil nu fi kook suñu sëriñ la sunu xarit la sunu doom la suñu sët la sax suñu lépp la waaye danoo siggi ci moom danoo siggi ci mbiram ndax yar bi nekk ci sëriñ Moustapha Njañ taali bi gi nekk ci sëriñ Moustapha Njañ xàmmee gi nekk sëñ Moussa njañ rafetal gi nekk sëñ Moussa njañ soxlawul dara lu dul sagub Serigne Touba soxlawul dara lu dul sagub Cheikh Moustapha loolu dafa yéeme loolu dafa yéeme mën naa cee joxe benn firnde dafa masaam benn màggal gii nu nekk ci kaw néegam sëriñ Moustapha moom sëriñ Saliou dikk mu bëgg mu wàcc toog fi suuf sëñ Moussa ko da toog ci kaw ma ne ko du toog ci kaw fii fi suuf la toog bàyyi ko mu def ak bëggam fi suuf la sukk mu ne ma sëñ Moussa ne ma sëñ Bamba sa waa jii de yàpp naa ko lool ci def loo ko ndax ay gëmmeen de barki dem bi ma ko wutloo ji dama ko wutal yut ma ko fi na sañ sëñ Moussa nii ngeen gis nii léegi sëñ Abdou Fatah jóge fi sëñ Moustapha moom sañ Abdou Lahad jóge fi ni mu sukke fi suuf ni mu raame fi suuf yéen taalibe mi sax def du leen du ngeen ko defee ni mu koy defee taalibe gu mat sëkk nekk na neboo ji benn sëtu sëñ Tuubaa ñëw bi mu ko séenee dafa jóg taxaw ba sëñ boobu agsi doomu doomu sëñ Tuubaa ko jur bi mu agsee mu sukk jox ko ñaari loxo ànd ak moom ak man dugg ci néeg ba ca biir kere ba ñuy indee añ ba ak raxasuma sëñ Moustapha mi moo yoral sëñ boobee raxasuma mu raxas loxoom kon képp koy roy da ngay roy ci ku mat roy kii nag ku mat a roy la amul bëgg-bëgg amul xemmemteef amul dara lul sëriñ bi bëggam mooy xemmemteefam gis ngeen lu mbooloo mi bari bari buñ nekkee fee di ko nuyu bu yëgee benn sëtu sëriñ Tuubaa bu ne fii day bàyyi loola fox dikk joxe loxo sukk raam te luñ ko laaj mu joxe ko moom dañu koy sant di ko ñaanal yéen ñi nga xam ne nag wala nun ñi nga xam ne nag wala mbooloo mi nga xam ne ànd nañoo ak moom mën nañoo roy ci moom mën nañ ko xool ni mu def ay kilifaam ñu def ko ni ni def ay kili ni mu def ñu def ko ni. xanaa gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sant Serigne Touba eh, di sant yàlla ci teewaat ci bis bii ndax bis bi mooy mooy mooy bisu yoonu murit ndax bis bi nga xam ne ci la Serigne Touba ñibbisi Touba. defe naa mooy bis bi nga xam ne mooy bisu murid yëpp euh, rawatina ki nga xam ne nii moo koy defal muy Cheikh Moustapha nga xam ne mooy yoon wi ndax tey damay faral di wax ne ñu bari li ñu gën a yéem mooy liggéey yoonu murid waaye man li ma ci gën a yéem mooy raay bi jumaa ji moom rëy na lool indi sëñ beeg lépp rëy na waaye jëlee ab raay njaareem ba Touba daanaka mooy liggéey bi nga xam ne moo gënoon a jafe ci yoonu murid te cheikh bi def na ko beneen bi ci topp mooy tàmbali jumaa ji ndax jumaa ji moom ñëpp yaakaar nañ ne du taxaw mu taxawal ko te mat sëñ Tuubaa loolu nag ndax bi mu fi jógee mag ñi fi nekkaloon ñëpp nangul ko li nga xam ne noonu lañ nangu leen woon sëriñ loolu yombut te loolu nag mooy dox baax si ci sëñ Moustapha mii tey ndax man ko moom laa gën a miin damay faral di wax ne nit mën na ko ëpp at waaye gën ko yombut ndax melokaan mi nga xam ne moom la ab sëriñ war a mel noonu la mel ndax moom lépp lu dul diine lislaam yoonam nekku ci amu ci ak defar amu ci ak yàq ni ko sëñ Saliou daan waxee rek euh, defe naa képp koo xam ne nit ku baax nga te bëgg lu baax rek da ko bëgg li nga xam ne moom lañ koy defal rek mooy ñaanal ko yàlla suñu borom mu yàggal ko fi lool te ak wér ndax yoon wii mu jaar de mooy yoon wi nga xam ne moom la Serigne Touba bëggoon mooy yoon wi Serigne mag bi jaaroon mooy yoon wi Cheikh Moustapha jaaroon mooy yoon wi waajuram yu baax yëpp jaaroon ci la jaar euh, bis bi nag boo ñëwee fii tey ci kër gi da ngay xam ne dafa jëm kanam ndax la fi Cheikh Moustapha bàyyi woon ba ci sëriñ Cheikh ba ci sëriñ Mouhamed tey jii boo fi ñëwee di nga xam ne lii nga xam ne moo fi am daaw fi am kon nag yokkute am na kon nag moom mi yokk yàlla na ko yàlla yokk ba lépp lu nga xam ne am na yéene defal ko waajuram ak maam rek suñu borom defal ko ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm. asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, noo ngi leen di nuyu bu baax eh, man Serigne Fallilou Mbacké mu Serigne Mahmoudane maa ànd ak njabootug sëriñ Mahmoudan gépp dikk teew si ci bis bii nga xam ne sunu bis la ndax sunu bis la ngir eh, seexul xadim moo tax mu jóg te amuñu lu mooy seexul xadim kon sunu bis la ci loolu ndax ay taalibe lañ teg taalibe rek la ñuy dund fas yéene fas yéene moom moom lañ fas yéene dund ba jóge fi sunu bis la itam ndax eh, seex moo seex seex seex Moustapha al Karim eh, ni mu meloon ak seex Massamba dañoo bokk lépp waaye mu féete ko ci wàllu wayjur ngir ci ci cos ci ci ci aada waaye nag moom xoolul woon loola sëñ Touba rek la daan xool ci moom ba fa tegoon sëriñ Touba la ko tegoon seenu ànd rafet lool ba ñëpp xam ko ba defe naa ne moom seen seen diggante ñëpp dégg nañ ko bu baax a baax a baax kon nag loolu it suñu bis la ci boo googu wàll suñu bis la it ci bi fii nu dikk muy kër sëriñ eh, sëñ sëñ Moustapha Ndiagne ndax sëñ saa Ndiaye itam dafa doon koo xam ne kii eh, suñ lépp la dëgg la sunu sunu sët la waaye nag day sunu xarit di nit ku baax ku am yitte koo xam ne kii eh, ku woyofal boppam la waaye nag tadis gan na ci biir eh, taxawaay mit rafet moo tax bu dikkee ci bis bi lu mu xat-xat nun njaboot gi ñëpp danañ dikk ba gis ko saafaanteeg moom fedd li wëllëre yooya te xam ne la fi nekkoon démb ba tey moo fi nekk rek noonu fas nañ yéene di ànd ak ñoom bu baax a baax ci lépp lu ñu nekk ndax loolu dañ ko fee fekk moomunu ko kon lu ñu war a jokk rek la tawar ko rafetal kon nag noo ngi am bu baax biñ dikkee fekk ko fi te di ko ñaanal yàlla gën a lu lu fanam te nu ko lu yàgg yàgg te am ci ngërëmul Serigne Touba mi tax ñu di ko def euh, noo ngi sant ñi fi teew ñëpp tey ñaanal ñëpp pajukaajo taar ba newoon ca Moustapha moo nekk it ci mii tafa wir ga newoon ca Moustapha gis nañ ko it ci miitam Cheikh Moustapha musula war telum la wax loola la nar moom lun la dig faye ko bar kenn musu ko